enquête politique sur votre site enquête 221 yéen internet yi nga xam ne yéen a ko taamu di ko suivre ñu ngi leen di nuyu. je pense que c'est une première expérience donc euh, maa ngi nuyu internautes yëpp di leen euh, sant di leen gërëm di leen souhaiter tam un joyeux Noël. léegi nag bind livre ak lecture daf ñuy yóbbu ci benn domaine ñun tey li ñu bëgg a gën a waxtaanee moom mooy sa livre bi nga xam ne bindoon nga ko am na yoo xam te ne internet yu ñuy suivre bëgg nañ ko xam mais balaa boobu colonel 2014 nga ko publier ñu nekk tey daanaka fin 2018 di jëm 2019 tey ci diggante bi ndax am na loo regretté ci li nga bind. non naa bi ma bindee sama livre euh, dama surprendre ndax livre bi euh, pratiquement le 13 euh, juillet lañ ko génnee benn journal bu ñu enquête xaw ma nan la def moom moo jëkk jot écho ci livre bi. commencé di ko wax affaire bi intéressé Sénégalais yëpp une semaine après benn site de livre bi na Sénégalais yi maa leen ko may. léegi colonel comme ñun enquête la te dafa war a leer site boobu ban site la. ak Actunet Actunet ci ban groupe la bokk. ak D-Média. d mooy bu Bougane Gueye Dany. mais dañu seetlu ni dafa mel ni affaire bi léegi diggante yow la ak Bougane Gueye Dany lu waral loolu. man musuma man xaw ma kuy Bougane Gueye Dany musuma ko porter plainte. xaw ma ko su ma ko porte plainte mosuma toog ak moom xaw ma ko su ma la gisoon léegi du mënuma la wax ki may Bougane ngay daan après Bougane si boppam maintenant dem def distraction juge bi rejeté distraction du dëgg mais ba léegi man aw ma affaire ak moom man li justice wax rek ak sama huissier la laa toppatoo mais malheureusement moom moo rentré en contact ak sama avocat moom Bougane Gueye Dany lui-même mhm. am na mail dinaa la jox mail bi moom moo envoyé mel def ma ay proposition en tant que personne il m'a proposé na ma léegi dama lay fay huit millions si mail bi dégg nga cinq la jëkk a wax avocat bi man ne ko non non pas cinq millions bu fayee dix million parrainage yi à l'époque ma ne bu fayee dix millions parrainage yi mu waxanteeg avocat waxanteeg avocat ba mu ne avocat bi dinaa ko fay huit millions avocat bi def ma proposition ne ma waaw nee na lay fay huit millions dont deux millions cinq cent mu fay la ko léegi li des mu fay la ko en seize mois.